Euh, président maa ngi lay nuyu. Euh, Pape Saer maa ngi lay fay te nga may ma ma siyaare suma doom yi ñëw fii euh, ànd ak yow bëgg weccante ak man ay xalaat ci lu soxal réew mi ak askan wi ma defe ko tey sama kër Touba ginnaaw bu ma jógee ci àll bi te ñetti fan yëpp ma nekk ci di wër ngir xam nga ne nawet dafa dëgmal. Euh, jàngoro bi nga xam ne mbas la aussi ñu koy wax coronavirus Covid 19 bi di def ay njombe ci àddina bi ak Sénégal euh, kon kenn ku ne fa nga dëkk war nga koy jege di ko nemmiku si euh, kees yaa nga gis ay masque la yoo xam ne ñi ngi koy joxe bu yàgg ba léegi ñu ma ci profité di soññ nit ñi mais di siyaare it sama yaakaar yi tey ak ëllëg. sëriñ Mountakha ibnu Cheikh Mamadou Bachir xam ne mooy xalif général des mourides moom la yàlla teg ci bopp yoon wi waaye nag sama bunt ci moom sama jëwriñ di suma xarit di suma mag mooy sëñ Moussa Nawel ibnu Cheikh Mamadou Moustapha mu Cheikh Mamadou Bachir euh, moom itam maa ngi koy ziare di ko nuyu ak njabootu xadima rasul gi ak suma bokki taalibe yi rawatina commerçant yi ak euh, ñenn ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique te ànd ak man ak sax ñi nga xam ni dañ may dégg rek te xamuñu ma mais yéen itam yéen waa presse bi nga xam ne euh, fu ma ñëwee am lu ma bëgg jàllale da ngeen di ñëw jàllale ko euh, ngeen di samay doom ak samay jarbaan ma yàgg yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal ngeen am jàmm. jërëjëf président comme mbokk yi noonu ngeen ko dégg mu wax ko poñ yooyu yëpp ñu fas yéene ko waxtaanee euh, tey fi ñu koy dooree en tant que opérateur économique ñu toll ci jamono boo xam ne. Euh, bët sébbéen mën nañ ko wax ndax gox yu bëri ndox mi tàmbali na fa wàcc jiw doon loo xam ne baykat yi dañ koy soxla waxtu yi en tant que opérateur économique naka nga gisee jiw yi ci jamono ji tolluwaay bi nguur gi taxaw bi mu ci war a taxaw ak askan ni nga xam ne ko ñoom ñoo ko war a jot surtout béykat yi ban situation ban jàngat ngay def ci tolluwaay bi fi toll nii. waaw ñu sant ci yàlla bu baax euh, ndax at mi ñun ñëpp xam nañ ni at mu jafe la. ndax euh, ay weer a ngi ni mënuñu liggéey euh, nit nag bu mënta jaabante mënta génn force kaayu ba amee yooyu dana am répercussion ci doxinu àddina bi euh, loolu lañuy ñuy dund tey président de la république ak ministre de finance et du budget ak gouvernement bi jël nañu ay matuwaay matuwaay bi mooy lan wut alal ju am solo ñu préparer campagne bi pour fas yéene ko gunge ñi nga xam ni nawet bi dañ ci yëngu muy ay jiw muy ay engrais muy matériel agricole loolu lépp taxaw nañ ci taxaw bu am solo euh, loolu nag bu amee li ci des mooy ñoom dañu war a am li nga xam ne mooy information ndax gis nga jamono bu ne domaine bu nekk ña ca war a mën a conseiller président de la république ndax moom mooy définir politique wu réew mi dañ koy xam euh, Sénégal na jafe-jafe boobu la am ndax président ñi koy eh, xelal ci domaine yenn yi xamuñu ci dara euh, boo ko seetee sax Sénégal defe naa ne président de la république man Moustapha Cissé Lo xawma kan mooy conseiller am ci politique agricole xawma it kan mooy conseiller am ci politique commerce xawma ko te ñaari domaine yooyu man defe naa boo ma ci génnee xamatuma dara ci àddina li ma xamoon lépp ci addina ci bay la ak ci commerce juróom-benn fukki at ak juróom-benn ci laa ko daw mais jàpp naa ne laajuñu ma ndax man bay juróom-benni at laa ko tàmbali euh, ami tool jàpp naa ne ci ñi nekk gouvernement Macky Sall maa ci ëppi tool ay surface yi tool dégg naa sax benn député bu toogoon ni Cissé Lo amuli tool baal naa ko mais ñi xam nañ ne man baykat la mais opérateur semencier la xam nañ ne quatre-vingt laa am import export am quota bu ceeb doon jaay waa Touba gi ceeb ñëpp xam nañ ko xamaat leneen loo xam ne am na ne ci ñi formé société bi njëkk di importer ceeb man ak Feu Dame Ndiaye ak Bokar euh, euh, Samba Dieye ñoom ak Serigne Dia Ndongo ñoom Ahmed Fall Braye ñoom ñoo ko créé woon société boobu maa doon l' administrateur de la région de Diourbel nekk secrétaire général depuis 2004 it maa yor chambre de commerce d' industrie d' kon wax jooju du ma tontu koo xam ni kii waxam bu ko waxee te ñu xam ko Macky salla nekk président bu faloo Macky tax mu président bu yoree ay milliards makke tax mu yor ko kooku xam na boppam wax naa ko ñemeetu la wax ndax xam na ne lépp lu mu am ci njuuj njaaj la ko amee kooku nag ñu mel noonu président la da leen a war daw. ndax koo xam ne moom lu mu def ci poosam rek lay wut nit ñi defalu leen dara président daf ko war a daw kon président dama la wax ni li mu war a def def na ko ndax fàggu na pour baykat yi kon lan moo des dépense boobu ñu mën koo jënd li nga xam ne moom la ñu soxla mooy engrais mooy gerte mooy jiwu ceeb mooy gu bu ñebe mooy jiwu beref euh, euh, euh, ñambi sésame yooyu yëpp ñu jënd ko yóbbu ko ci baykat yi waxtu wi nag daa jot loolooy problème tey bind naa bataaxal ministre de l'agriculture laaj ko fu mu toll ci loolu duma ci dem ci question de orale mais dama ko ko bind te jàpp naa ne suba dinañ gisante jot naa ko pour ñu waxtaan ci loolu ndax jàpp naa ne am na opérateur yu ñu jox ay quota leen jox leen diw engrais wala joxe leen gerte wala ñebe te amuñu loolu loolu nag dañ ko war a jeex ñun ñi ñu jox quotaay yëpp tàmbalee ci man mu Cissé Lo ndax ñebe jox nañ ma 2000 ton ni naa ko joxee 2000 tonnes yi mi ngi fii bu ngeen paree na ngeen ko jël am na camion yu jëm tey ji Podor nañ ñi ci def def ne man mais ñebe gëm naa ne ñi jox poids ñebe yi amuñu ñebe waaw ñebe jooju nag buñ ko amul fu ñu koy jëlee est-ce que dañuy wàññi capital semencier bi boobu it maa ngi koy posé Sénégalais yi man 2000 tonnes yi jënd naa ko yi ni ma naa ko yóbbu bu yàgg ba léegi maa ngi leen di soññi maa ci jëkk a jekk te maa ci gën a rafet ñebbe waaye ñi nga xam ne nag dañoo bëgg ku leen joxu kayit rek ni Mor Ndiaye nañ ko jox jugu nga dem ci kër këram jox ko xaalis loolu nañu xam ne duñ ko ji ci suuf si loolu déet bu dee opérateur bi amul jiw xaalis rek lay mën a jox baykat bi buñ ko ko joxe mu def ko ci poosam bu boobaa duñ ko ji du yokk production productivité loolu day yàqub nawet te valable na pour ci gerte gi am na ñu ñu jox tey jii mille tonnes ci gerte xam naa ci ay opérateur dinaa ko wax ministre bi na ma boolee ki nit ñu dem ñu wan ma fu 3000 tonnes yi ñooñu ay 500 500 tonnes la ñu jël bëgg fab xaalis jox nit ñi loolu mooy li ma doon xeex ci gros producteurs yi am na ci valable na ci engrais bi engrais bi it fii may tollu di wax yow fii li ñu war a joxe ci engrais nekkul Sénégal yan bateau ñoo koy indi balaa boobu engrais bi ana fu ne nañ ko wax ñi ñu jox ko tay yooyu ni leen joxe leen engrais te ñoom mësuñoo jënd engrais loolu dafa mat a leeral te mënuma bàyyi man ñuy nax sénégalais di continuer di continuer di continuer engrais kiñ ko war a jox mooy ki am capacité comme man mën a wuti engrais indi ko man fiñ ma jox Kaffrine seen engrais dem na Podor mi ngi dem boo demee jam ñaajo stocké fa la fa des buñ ma waxee fuñ koy yóbbu ma yóbbu ko fa na nit ñi def ne man te bàyyi naxante bi bu ñu waxee ñu ni Cissé Lo day wax lii day wax lii man mënu ma nekk opérateur économique di liggéey joxuñu ma exclusivité benn affaire jox ko ñoo xam ne ñoom amuñu produit bi loolu il faut que ñu régler ko euh, problème coow loolu jeex man gëm naa ne tey président de la république bu ma woo ministre bi toog woo ma danaa ni ko diw diw diw quota yi ngeen ko jox nangu leen ko ndax du joxe gerte du joxe ñebbe du joxe juwu ceeb du joxe euh, euh, gerte mais xaalis lay jox ñi nga xam ni ñi ñoo war a bénéficier ba pare ñu ni loolu ji nañ ko sax na loolu moom lay xeex mooy suma combat ma bëgg bu mu am ren ku ñuy jox na nekk baykat na nekk ca tool ya jiw yu bu demee ci baykat yi en tout cas yàlla bu defee mu taw kenn du ko réccu. li nga ci waroon am yow disponible. man man luñ ma fuñ ma yóbbuloo ma yóbbu fa man pare naa bu yàgg <laughs> loolu mooy problème bi. tuuti lañ ma jox. Euh, deux mille tonnes lañ ma jox ñebe jënd naa ko ba pare engrais bi cinq mille tonnes lañ ma jox jënd naa engrais bi ñeneen ñi ñu jox lu mel ne man nañu def ne man. mais bu ñu dem nag di tappale ñu ni Pape Saer jox nañ ko vingt tonnes engrais nga ñëw jox ko ci kër gi xaalis loolu lay bañ ñu def ko bu boobaa suuf si duñ ko engrais mais poches yi la ñuy engrais loolu laa bañ engrais poches yooyu nañ ko bay te ñu bay te ragal yàlla te bàyyi lekk riba ndax alal jooju ñuy def ci seen poche bari na ci gone yi xam na ci la ñuy dund ak dóor nekk ci réseau sociaux yi naan baax na nangam nangam dañuy fen amuñu tool fii am na ci sunu dëkk bi ñuñ fi jox quota yu rëy daaw mais res ñi fi nekk sax yëguñu ko dañoo dem jël xaalis def seen poste dem seen yoon wax naa ko assemblée nationale bërki dem ni leen am nay député ak i ministre ak i kilifa yoo xam ne jox nañ leen ñii tonnage yu mag a mag a mag dañoo laaj xaalis opérateur ba def ko poste loolu président maa ngi lay ñaan waxoon naa la ko sa bureau wax ko ministre bi maa ngi xëppi samay bët danaa def tournée xool opérateur yi buñ ko defule dama koy dénoncer. gouvernement bi xaalis bi nga xam ne def nañ ko ci jiw yi def ko ci intrant agricoles yi moomu ñu ko alalu askan wi la ay impôt la ay xaalis yu ñu ñu dimbalee la ñu jox ko ministère mu war ko def programme bi nga xam ne moom la président définir mais programme boobu waxuñu nañu fab jiw yi nañu fab. tracteurs yi nañ fab machines yi di ko neexale kenn mu dem di ko wëlbatiku di ko jaay jiw yi ak tracteurs yi ak li ñuy joxe pour baykat bu am tool te nar a dem ci tool yi la dañ ko subventionné te subvention bi sunu xaalis lañ ko subventionné ngir la monsieur le président de la république waxal ak ministre bi ak ministère bi askanu Sénégal sonn nañu mënoo dem def ay liste ci biir village yi di joxe bopp cinq kilos trois kilos dix kilos ñi nga xam ne ñii ñoom ay dealer lañu ak mën nañoo réewu làmmiñ nga fabi cent tonnes cinquante tonnes jox ko pour mu waxal la lu baax loolu baaxul cim réew day delloo réew ginnaaw daaw nawet bi li ci manqué looloo ko waral ndax liñ ni joxe nañ ko joxewuñ ko ndax buñ ko joxee ci ay lañ ko joxe ay poste lañ ko def engrais bi ñuy wax suuf si dee na at mu ne ñu génne engrais ni joxe nañ ko joxewuñ ko nañu contrôler ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi bari na ñu ñu jox tey jii ni nañu joxe mille tonnes engrais amuñu cent tonnes am na ñu ñu jox cinq mille amuñu mille tonnes am na ñu ñu jox trois mille wala cinq mille tonnes gerte amuñu cinq cent tonnes am na ñu ñu jox ñebbe amuñu ñebbe loolu nag buñ nee dañ koy suul ci suuf mu ñor dañuy daaneel réew mi loolu détournement d'objectif la monsieur le président de la république duma masa nangu ñu continuer di ko def yéen opérateurs yi maa ngi leen di avertir kenn kuñ ci jox quota ay milliers de tonnes danaa ñëw ba ci yow ni la fan nga teg sa engrais fan la sa gerte ne fan la sa ñebbe ne boo ko amul danañ ko nangu jox ko keneen bàyyi leen tappale yi te liggéey ngir yàlla nit day dunde aw ñaxam Sénégal yi mënuñoo am junni ñuy jox sunuy million ñoo xam ne ñi ci ay tappale rek ak aw neexu làmmiñ la comme niñ ko defee woon daaw dootuma ko nangu loolu dama bëgg mu leer nañ dama bëgg ma leer duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg nañu bàyyi jiw yi ak baykat yi dem ci tool yi te ñu dimbali leen encadre leen fexe ba jiw yi àgg ci ñoom tappale yi bari na njuuj njaaj yi bari na maa ngi avertir ministre de l' agriculture directeur de l' agriculture directeur de cabinet xamal leen ne képp koo xam ne jox nañ la jiw ay dix tonnes vingt tonnes yokk semence te amoo tool damay porter plainte ministère bi ak état du Sénégal loolu dama bëgg mu leer nañ waxoon naa ko assemblée tey laa ci gën a taxaw te combat boobu duma ko bàyyi sama bakkan laa ci teg jox leen jiw yi baykat yi sonn nañu li ñuy joxe ci dund di ko leen nañ ko jox ñi nga xam ne sonn nañu te bàyyi nax nit ñi riba day daaneelum réew économie réew tant que nit ña fa nekk jiite nit nit ñi ñi ngi lekk riba di jënd kër yi ay milliards di ko yor jënd oto yi centaine de million bàyyi nit ñi bu ñu añee du ñu reer président na xam ne ministre yi ñu ci baree bëri de leen a war a génnee gouvernement ay sàcc lañu ay sàcc yu wér liñ leen jox ñi ngi koy bind ci kayit di tappale li ñuy wax du dëgg boo leen woo pour ni audience ñu lànk loolu na dakk réew mi ñoo ko bokk dañoo waxoon nit ñi danañuy def gouvernance sobre et vertueuse gouvernance bi ma gis nag daf ma tiital fi mu toll nañu mooy sunu bopp bu ñu bëggee ànd nañ ànd ci dëgg te bàyyi ànd ci keddoo keddoo ak ku la waxal lu neex rek nga jox ko alalu askan wi loolu daf fee war a jóg foofu rek laa ne xàmme woon nañu la lool ci wàllum ceeb bi Euh, ñu gis ne mel ne dafa tool ay jamono dafa mel da nga koo bàyyi woon waaye ñu fan yi nag ñu gisaat la ci euh, nga am ay jéego yoo ci def ba sax dafa mel ne nguur gi jamono ji ceeb bi ñuy jënd yow am nga beneen taxawaay boo xam moo gën a jekk ba nga ci taxaw ndax mën ñu del siwaatal ci situation boobu ni nga ci taxawee ak lan nga ci mën loo xam ne jàpp nga ne tey nguur gi bu la dégloon dana ci gën a gis njëriñ euh, ceeb dama bokk ci ñi ko jëkkoon di def ndax gone yi fi ne maa leen tuddee ay importateur kooku bu mënee jënd am xam-xamu mën a jënd ceeb mën a indi ceeb wala mu mën a indi sukkër wala dëwlin ab ruxsa la mais bu ñu ñu boolee rek ñu tolloo degré bu indee une tonne dina ko jaay cent mille danaa indi cent tonnes di ko jaay quatre-vingt-dix mille loolu it laa def ceeb bi man jënduma ko bitim réew ki ko indi fii moo ma jaay ceeb xam nga lu ma jaay ceeb bi ah deux cent soixante-trois mille francs la ton te li ma ci jënd bariwul 2000 tonnes la ma ci jaay man ñaari dërëm laa ciy dàq def transport bi bu ma la ko indilee ba fii ci ci eh, Touba xaadim mii ci ñi koy jaay nit ñi 10 tonnes la bokk maa lay wàcceel ci sa magasin ci 275 gouvernement bi nag naar bi nga xam ne ak Mohamed Dieng ñoom ñi ñu jox ceeb boobu ñoom dañ koo jaay 275 ba pare wuti ay job si ñoom ñoom ñu fay yaat transport boo xam ne ñenn ñi ñu ngi naan deux milliards la trois milliards mu mel ne bu ñu ma ko joxoon sénégalais yi li ñuy jëkk am bénéfice mooy trois milliards yooyu ndax man maa ko yóbbu fépp te day gaaw kon foofu la problème bi ni mais loolu nag maa ngi posé question lu tax man may commerçant am kayit yi ñu am joxuñu ma ko mbaa ñu woo ñëpp ku nekk am ci dara mais ñu jox ko ñooñu ñoom ñu def ci lu leen neex loolu it problème la boo xam ne man jaaxal na ma dama koy laaj rek ñu leeral ma ko bu yàgg ba léegi maa ngi koy laaj te amaguma ci réponse maa ngeeg bateau boo xam ne douze mille cinq cent tonnes de riz indien la tey jii buñ ma bindalee DIPA kayit woowu sagaru kayit woowu ñuy joxe man dinaa ko indi jaay ko sénégalais yi ak gouvernement bi deux cent soixante cinq mille francs ñaari dërëm laay wàññi ci la naar bi jaaye te bu ñu bëggee fu ñu bëgg ma yóbbu leen ko Sénégal ci loolu ci prix boobu loolu yi dama ko ci dolli. ceeb bi waaw <laughs> loolu mën naa ko. jàngoro ji lay wax léegi eh, xëy na mu ngi fi sonal na ñëpp ndax matuwaay yeeg eh, li mu gàllankoor waaye yow itam dafa mel ne beneen coono nga ci gàllawaat ndax ñu bëri eh, faj ma lañ lañ lay wax daanaka jàpp nañ ne daal yow yaa ki xam ne yow yaa indi saafara si loolu yan coono nga ciy gàlloo fi mu toll boo gisee coronavirus bi bi mu ñëwee dafa ñëw ci. bett doomu aadama yi mbetteel mu mag la ñëwee ndax kenn seenuwu ko woon kon impréparation mooy am dañ ci dugg rek ak mu ngi mel ni ku la bett rek tëgg la ab kurpañ na nga mën a réagir rek ngay réagir kon gouvernement bi am na promptitude ci loolu réagir na jël nay matuwaay dox na mais li xew tey man peuple sénégalais ñoom laa mere ñoom lay condamné ndax gouvernement bu la nee nañu faggu ndax li àddina bépp la am kër gu ne dugg na fa te mi ngi def ay ravage di lor da nga war a dégloo xel te bañ a politiquer affaire boobu mais dañ koo politiquer dégg naa fan yi wax yoo xam ne duma ci tontu mais li ma gëm tey mooy Brésil attanatuñu rythme bi propagation feebar bi def un million et quelque Sénégal bu ñu jëluli matuwaay xanaa déglu ñi nga xam ne li ñuy waxee soxaru politique wala fanatisme la ñuy waxee Sénégal dana am mbett mu rëy kon président de la république maa ngi koy ñaan moom ministre de l'intérieur ak de la santé ñu jël seen responsabilité parce que peuple bi dañoo fal président pour mu sàmm leen yëf yi xam nañ ne am na xam nañ ne mi ngi lore nañu jël seeni matuwaay moo gën toog ba problème bi àgg foo xam ne fii kenn ku nekk danga am kersa nañ dem wax ak kilifa diine yi wax kilifa aada yi wax ak borom xam-xam yi buñ ko defee corona bi danañ ko mën a faj. corona bi nag man wax naa ci comme ni nga wax euh, li ma wax it waxu yonent yàlla euh, euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñu yebaloon ci jam ñi la ci ab jullit bu gëm te wéral day dellu boppam ci yàlla gëm ko te ñaan ko niñ koy ñaani coronavirus boobu am na ñaan yoo xam ne yi mi ngi ci suma way ndare yoo xam ne boo ko defee incha allahu boo jullee fajar ba pare dem def téeméeri onze billahi min asheytaan rajim onze bi kalimatillahi tammaati laa xawla wala quwata illa billahi alil alil azim cent fois nga demaat def li ilaa fi Quraysh juróom-ñaari yoon bu ne da nga koy jiital bismillahi rahmaani rahim def vingt-huit salaamun qawlan min rabbin rahiim def cent onze basmala boo ko defee da koy def def cinquante suratul ixlaas def ñaanuk sëriñ Abdul Aziz Dabaax ñu bari gis nañ ko mu joxe woon ko ca at ya ca gannaaw mu ni yaakaar boo koy def def cent def dix def un nga def yàlla tiif cent vingt neuf moom itam yoo xam ne yi da ngay def neuf def vingt def cent nga ñaan mucc wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wasalim euh, te te takk ko foofa dellu defaat fatiyatul kitab salaatu fatiya defaat basma la 6 bay def 60 tëje ko salaatu fatiha moom itam moom nga koy clôturer clôturer boo ko defee incha allah yàlla sun borom bi dana la mën a musal boo ko dëkkee saxal ko mbas mi lu mu tàng-tàng da nga ci mucc kon loolu maa ngi leen koy baaxe loolu laa yor yoruma leneen jullit ñaan la yor bés bu ne boo jullee suba ba pare danga mucc ci bis bi benn bi ci des euh, day faj ñu ma koy laaj muy diabète muy hypertension muy hépatite B xam nga lu koy faj li gën a gaaw sexew sexaw mii sexaw demal nga fàq ko bismillahi rahmaani rahim feuille morte yi bu ko ramassé nga fab ab sëq raxas ko def ko ci ab récipient wala ab soo baxal ndox ba mu bax nga sotti ko tëj ko ba mu def infusion nga def ci limon nga def ci euh, jinjeer gratter ko ci def ci xorom polle def ci jar sukkare ko lem lemu yamb boo yeewoo premier heure moom ngay naan mooy jëkk sa biir boo añee naan ko boo reeree naan ko boo jabetee jabet bi dana wàcc boo amee hypertension comme man ndax man ex force docteur sama bi ma ko joxoon benn comprimé jol naa ko lu mat cinq ans par jour du ma ko ge vingt trois mille lay jar maa ngi ci trois mois ni cocc gis nga ma sama tension boo ko monté boo ko kee maa ngi ci vingt euh, quatre trente quatre trente cinq gars yi dañ may wax man leen damaa man maa ëpp doole corona moo tax ndax li may jëfandikoo ak euh, per yi may dóor corona attanu ko kon loolu jox naa ko ñëpp fexe leen ba tasaare ko li ngay wax partagé man xam nga man waaju baax laa laaju ma kenn addiye partagé li ci des nag euh, maa ngi lay xamal ni dama sama téléphone maa ko joxe mais joxe wuma ko pour nit ñi di ma woo di ma laaj xaalis man xaalis bi ma yor pour sama njaboot la pour samay bokk la pour samay xarit la ku ne am ngay bokk am ngay xarit am na ñoo bëgg la ngeen yor bokk leen ko képp ku ma woo naan ma da ngay jëf jëf lu baax am na ñu ma koy wax bu ma koy jëf du ma leen ko jëfal woo ma rek ni ma ko bu boobaa damay nirub dof dof rek mooy yor gaalu xaalisam ku ku ko ne da ngaa baax mu jox la ko kon loolu maa ngi leen di yëgal ni jarul di ci son ndax ku ma wooy tontu la ma lay tontu man nga ma cee mere ku bëgg liggéey nag te laaj ma xalaat danañ ànd man maa ngi ci tool yi maak suma njaboot am naa projet yu bëri yoo xam ne maa ci marocain lañu maa ngi ci àll bi ay tool laa bëgg damaa bëgg indi technique yu bees danaa fi monter it ay industrie yoo xam ne yii danañ defar transformation mangue yi jus limon yi yooyu yëpp maa ngi ko bëgg a def ci région Thiès maa ngi xalaat fii aussi euh, benn ferme boo xam ne maa ngi ko bëgg a def deyal yi am naa suuf si ba pare loo xam ne falaa ko war a def ak ngaabu gii pour ci élevage bi li des nag man la ma doon bay laay bay mooy soble pomme de terre euh, euh, lu mel ne kaani lu mel ne ne kanja ak nag arbre fruitier ndax suma tool boo xam ne bii fan yi laa jënd boo xam ne mango yi mi ngi ci yu bare bari ci Kër Moussa danañ ko rijji suuf si dama fay bay ñebbe ak ci ay fii ci wetu deyal yi aussi vingt hectares yu ma yor fii maa ngi fi bëgg a bay xaal ak ñebbe mi ngi fii ci kàddu Ndiaye na nit ñi def noonu mais tàllal loxo maa ngi leen koy wax. ne leen Moustapha Cissé ku doon ñëw ci moom pour di ko laaj xaalis mënatu la joxe xaalis xaalis bu may joxe nañ dem ci ñi ko am man koo joxe man daal opérateur économique la Macky Sall laa àndal di ko jàppale ndax dama koo fal lépp lu ma gis nag ne baaxul. danaa ko ko signaler bu ma ko gisee wala ma yóbbante ko ci seen vidéo yi pour mu jubbanti mbay mi commerce gi ak yeneeni i yu mel ni tourisme na ko xoolaat politique yooyu na ko xoolaat ndax yooyu moo yorum réew ak artisanat bi te bu ko xoolul mën nañoo dem ba Sénégal dig ndax fii ak deux mille vingt et un dina metti trop képp ku takkuwul dem liggéey da nga ko réccu député rek la léegi dootuma président parlement CEDEAO Moustapha Niass mooy buur ak but bummi ci assemblée il faut mu wax ñu budget assemblée nationale bi nu mu koy def Moustapha Niass parce que moom moo ko yoru yor ay màgget ñu yor budget bi lu leen neex lañ ci def ay mag yi juróom-ñett fukki war a dem retraite yor sunu administration du ñu wax ak kenn du ñu leeral kenn loolu mënatu la ne mënatu la ne nañ toog te président de la république maa ngi koy ñaan na ñu indi projet de loi assemblée nationale delloo si benn article le président de la république après deux ans d'exercice de son mandat peut dissoudre l'assemblée nationale loolu bu ko defee nañ ko valider président de la république organiser ay élection couplé élection législative ak élection locale yi loolu mooy dëgg ñu économiser ay milliards buñ ko économiser sunu xaalis boobu ñu appuyer ko Covid 19 bi Sénégal attanul ay élection en permanence. nañu dissoudre conseil départemental yi amul njariñ nañu renforcer maire yi pouvoir déconcentré bi na yem ci maire yi ñu renforcer leen jox leen i moyen ñu liggéey accompagner l'état du Sénégal. xalaat naa it ne post premier ministre président de la république war nga ko delloosi mbir mi dafa diis ci yow. wutal ku la doy nga dénk ko mu coordonner l'action du gouvernement di la rendre compte loolu sengoor defoon na ko dindi ko ñëwaat na ci premier ministre Abdou Diouf def na ko ñëwaat na ci donc war nga ko mën a def premier ministre Ablaye Wade toog na fi ba mu jógee fi da doon am premier ministre wutaatal premier ministre mu jàppale li ci liggéey bi loolu ndax dañu bëgg nga réussir sa ndam mooy sunu ndam jàmm lañ la yéene mais am na lu bari loo xamul am na ministre yoo xam ne wax dëgg yàlla mënuñu sax ab euh, chef de cabinet xamuñu dara ku xamul dara nag amoo benn expérience boo ko joxee am ministère mais du dox am nga ay cadre de haut niveau jël leen am nga nit ñoo xam ne même bu ñu jàngul am nañ expérience mën nañoo yori ministère nga jox leen ko yëf yi dox yéen su may kilifa bu ma ko waxee nag yu aada yi laay wax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 na ma ci nit ñi génne jële na samay activité dootuma def politique politicienne politique de développement lay def ànd ak secteur privé pour jàppale président pour réew mi mën a am décollage économique politique tuma politique bi may def développement la ku bëgg politique boobu ñu dem bay sàmm ñu ànd ci loolu mais politique gu wax rek ak nit ñi mbooloo mi man la lañu àndal te defaloo kenn dara déedéet man pare naa ci yooyu man pare naa ci parce que nekkatuma ci ay liste bëggatuma député bëgguma ministre bëgguma PCA Macky Sall na ko jox ku mu bëgg même vice président assemblée nationale gi ma jox na ko jox ku ko soxla soxlawuma dara ku ma jàppale ma liggéey pour développement Sénégal ànd ak gone yinga nga xam ne amuñu liggéey di daw suñu gannaaw loolu moo ma ñor président Macky Sall boobu message laa lay def jàppale ma ma wuti xaalis indi ay projet structurant industrialisation Sénégal ñu ànd ci am naa xel am na relation yi mën naa la cee dimbali leneen nag moom ñoruma. kon journaliste bu bindoon tey président Cissé Lô bàyyi na politique juumul. déedéet ko wax man du ma nekk président bëgguma nekk ministre bëgguma nekk député xanaa nag du ma daw ba dee xaadim ñoom ñi kay nañ dem dawi xaadim li ma leen gunge doy na gannaaw ñoom man nañ dara kay maa ngi leen di bàyyeeg bukki yi ci àll bi buñ leen lekkee nag yeney perte de bukki yi xaadim yéen. politiciens yu ndaw yi am na bukki yu leen nar lekk merci. Euh, jërëjëf jërëjëf président jërëjëf euh, mbokk yi kon yaakaar naa ne ñoo ko déggandoo mu doon jotaay bu am solo bi nga xam ne ñu ko doon seq ak le président Moustapha Cissé Lo mu doon jotaay ba am njëriñ lépp nag jëm ci askan wi ni ngeen ko dégg ñu door ko mu tàmbale ci wàllu mbay mi xam ngeen nawet bi door na euh, ak jiw yi nga xam ne baykat bu ne soxla nga ko. ak euh, leeral yi jot na ko ci indi ci yeexaay bi nga xam ne ñenn ci ay opérateurs yoo xam ne euh, laaj nañu ba ñu jox leen waaye nañu ko war a joxe defewuñu ko noonu ay leeral yi nga xam ne jot na ko ci indi waaye tam lu jëm ci wàllu ceeb bi taxawaay bu am na ko ci ba ci jàngoro ji di corona lépp doon ay poñ yoo xam ne boo ko tourné rek yëpp ci askan lu jëmaat mu doon lu am solo kon ñu santati ko gërëm ko bu baax a baax yéen mbokk yi nga xam ne ko yéen àndoon ñu ñun itam ñu leen di jaajëfal di sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp buur laa mu am jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na boole jàmm jërë ngeen jëf